maa ngi tudd Ali Balde. ñu fekk la nga nekk ab ndaw di daan sa doole fii ci marché Sandaga tey ñu daal di fal ki nga xamante ne nii moom moo di basiiru Diomaye Faye ci boppu réew mi. ban appréciation nga ci njëkk a am. waaw xanaa euh, comme ni ko sénégalais yëpp amee rek Bassirou Diomaye Faye sénégalais ñoo ko fal. Mhm. parce que changement lañ bëgg. li ñu jot a dund ci 12 ans yi moom ñaan nañ ko yàlla dund ko. Mhm. bëgg nañ changement am na xaar si moom. Mhm. changement la lañ bëgg total. changement ngeen bëgg tey ñu fekk la fi nga xamante ne moom moo di Sandaga yéen ngeen fare ci wàllum jaay ak jënd bu ngeen doon xaar ci njiitu réew mi am message boo xamante ne da ngeen koy jox Bassirou Diomaye Faye ban message lay doon ngir mu suuxat euh, suqati li nga xamante ne ni moom moo di seenub liggéey mu gën a jëm ci kanam waaw commerçant yi moom ku leen jàppale moom rek leen jàppale ci euh, ci li ñu yëngu rek dèjà tey comme marché mi moo ngi moo ngi en bu demee ñu yombal ko ñi nga xamante ne dañu nekk ci taaba taaba mhm. place yi ñuy joxe ñu jox ñi nga xamante ne nekk ci taaba taaba ñu jox leen ko comme ça moom ku leen mën a dimbale ci ci li ñuy rek loolu ci mun a dimbale ñoom dañuy jël mm-hmm. parce que marché bi lañ nekk dèjà mu ngi mu ngi en chantier mm-hmm. ba si Diomaye li ñuy xaar ci moom li ñuy xaar ci moom bëri na xaar nañ ci moom emploi des jeunes yaa ngi comprendre xaar nañ ci moom sécurité xaar nañ ci moom lu bëree bëri buñ ko doon wax duñ fi jógee li ñuy xaar ci moom bëri na mm-hmm. changement daal bëgg nañ ko daal waaw xaar na ñu ngi xaar changement bu yaatu yaatu ci moom. est-ce que xaaroon nga Amadou Ba daal di yëkkati téléphone am woo Bassirou Diomaye Faye félicité ko. waaw waaw loolu la waroon def loolu moom mooy yoon loolu depuis démb la woon parce que résultat boobu ku xool na ne Bassirou jël na raw gàddu gi waaw loolu depuis la comme def na ko tamit ba tey sa bo waaw senegal le Sénégal qui moom mooy gagné ko waaye yëg-yëg bi ma ci am moom mooy yëg-yëg bi ci Sénégalais yëpp am ku far ak euh, Sonko ak ku farut ak yëpp xam nga ne yàlla dogal na fal nañ ba Bassirou Diomaye Faye premier tour ci fal bu xaye wax dëgg yàlla fal bu valable bu leer naññ li may wax sénégalais yi nag mooy maanaam buñ leen fal ba noppi nag wëlbatiku bëgg leen a fakastal bu ñu yaakaar ne Diomaye Faye day falu tey tey rek Sénégal daal di xëy rek ñëpp nekk ay milliardaire bu ñu amee intention boobu tamit maanaam temps bu ndaw la ñuy toog commencé di opposé wu di ko sànni xeer te loolu bu ñu ko defee tamit dañ koy sonal naam yan bi diis na lool nag parce que sénégalais nag jëlee nañ teraanga ñoom tamit teranga googu nga xaaye sénégalais jënal nañ ko nañ sàmmu teg seen kàddu yi nga xaaye wala projet bi nga xaaye proposé nañ ko sénégalais yi ban gëm leen ba woteel leen ñu gagné premier tour nga xaaye lépp lu ñu waxante ak sénégalais xëy na nit du loo wax rek mën koo def nu nga ko waxee waaye nañ jëm seen kémte lay daal ba li leen dig sénégalais ban am ci ñoom yaakaar ba fal leen ñu def minimum daal euh, ñu satisfaire sénégalais yi ba leen programme bi nga xamante ne ak projet bi nga xam ne jaay nañ ko sénégalais yow tey da ngay ñaax kii di Bassirou Diomaye Faye yàlla bu mu wor sénégalais non yaakaaruñu mu war ko sax maanaam mu góorgóorlu lañ ci wax rek maanaam mu góorgóorlu ci la ñuy wax mais wax dëgg yàlla gis ñu ci seen xar kanam maanaam ay war daal mooy président Sonko mooy président Diomaye fay beneen bi tamit ñi ngi leen ñaanal tamit seen diggante ñoom ñaar aussi yàlla suñu borom musal leen ci seytaane parce que nag ànd nañ booba léegi di xeex di daanoo ko jóg ba am ñu ñàkk seen bakkan ba tey jël nañ mbir mi teg ko ci seen loxo ñoom ñaar ñi nga xay yàlla suñu borom boole leen tamit nañ góorgóorlu ba tamit maanaam bu ñu warante ndax bu ñu warante ñoom ñaar rek mel na ne sénégalais lañ war. Uh-huh. tey Amadou Ba daal di yëkkati téléphone am woo Bassirou Diomaye Faye félicité ko ban njàngat ci am. waaw loolu lu rafet la rek maanaam loolu day wane ne sénégalais dëkku démocratie la beneen bi tamit loolu ma def aussi day day day wane jàmm maanaam Sénégal réewu jàmm la. mën nañoo xeex xuloo xëqante ni mais après le fur et à bu ndemee ba dernier kii bi après dañuy àndaat. jubawaat te loolu rek mooy mooy jàmm ji nag maanaam noonu mu def noonu rek la war a def jàmm am parce que boo bëggee sa réew nag sa intérêt bopp waroo koo jiital ba tax. est-ce que xaaroon nga lii ci Amadou Ba. bien sûr lu tax xaaruñu ko ci moom parce que affaire bi dafa leer tey bu waxan leneen lu lool rek après day juru fitna ci réew mi te loolu amul njëriñ daal moo gën intérêt personnel. waaw jaajëf. li may xaar ci moom noonu mu balee gars yi ñu dem na fexe ba lu bees sàq dugg ci réew mi rek nous voulons que tous les saltés soient au dehors. de notre pays force occulte yi ñu waxte dara du ci dëgg na fi yooyu jógee ay diw salafiste laak yooyu c'était c'était la démagogie C'est le bon Dieu qui est venu avec sa propre contribution. Je m'appelle Papa Amadi Ndiaye Diaz, le fils spirituel du président Abdoulaye Wade. Mouhamed Seye laa tudd. Mouhamed Seye tey nga daal di gis ki nga xamante ne nii moom moo di Amadou Ba yëkkati na téléphone am daal di woo ki nga xamante ne moom moo di Bassirou Diomaye Faye félicité ko ginnaaw fitna gi nga xamante ne moom lañ ci doon xaar yëpp loolu lépp amu ci ñu bëggoon a xam mbir mu ni mel ana nan nga ko jàngatee. waaw dañ si am mbégte bu rëy parce que xam nañu élection nii lañ demee quoi parce que Sénégal moom élection nii la baaxoo quoi parce que mun nañ xeex mun nañ def lépp moom si jàmm ñëw si jàmm borom def na loolu yëpp am na dem nañ woote si jàmm Bassirou Faye gagné na ñoo ngi sant bu baax waaw ñoo ngi sant yàlla tey kii di Amadou Ba ñàppandal gi nga xamante ne njiitum réew mi président de la république waroon nag kaa jàppale mbir mi daal di des est ce que nekkul ne moom moo ko xañlu li nga xamante ne moom moo di élection yi ah mais loolu moom bu ma ci mën a sori parce que am na ñuy wax naan moom moo ko saraxee affaire yoonu quoi mais ñun daal suñu leader lañ lañ xam ni ñu ko ni ko jàppalee ba mu mooy Bassirou Faye loolu loolu daal xam naa dara quoi. Oh. tey lan ngay xaar ci njiitu réew mu bees mi nga xamante ni falu na. waaye di ko ñaanal rek maanaam maanaam ay bi mu mu toll ci kaw. ba lépp lu mu yéene Sénégal suñu borom motal bakk gaaw fal la tey suba ñu toog daal ne fi dara may kii di Bassirou Diomaye Faye temps ngir mu mën a liggéey. waaw surtout ça loolu moom il faut la ñu am patience tuuti quoi parce que xam nga xam nga xam nga xam nga réew moom nekkul nekkul quartier nekkul ay affaire de maire quoi nation la lépp ngay jël mais ñu tout le temps parce que ñi fi nekkoon maanaam dañoo yàq lu bëri Sénégal léegi léegi temps boobu nag il faut ñu may ko def ko am patience tuuti ñu xaar ko mu liggéey quoi affaire yooyu waaw loolu la ñu xam. man di la jaajëfal bu baax a. bi tur bi naka la. Seck Ndaanaan la ñuy wax may sa Seck quoi mais Seck Ndaanaan la gars yi gën a miin. tey ñu daal di lay fekk fii ci Sandaga ginnaaw bi nga xamante ne am nañu njiitum réew mu bees coow daal di bari loolu ñu daan ne kii di Amadou Ba li tax mu ñàkk élection yi mooy amul njàppandalu njiitu réew mi président de la république Macky Sall ban njàngat ngay am foofu. ah mais Amadou Ba moom ba mu waree xaar daa yàgg barke yonent bi parce que pentoog amul gër bokkul ñu ñooy choisir ñun population bi ñoo bëgg ñu ne ñoo ne ki Diomaye Faye lañ bëgg ak Sonko ay la yéewén dañu may ñeex rek te avancé rek parce que fair play mu def sax li dem si guddi woon mais ranki ñeem boobu mu amee dara mais noonu lay mujjee rek alhamdulilah comme Diomaye moom nekk na président rek mm. loolu lañ si liggéey réew mi jàll ci leneen lan ci Bassirou Diomaye Faye ah li ñuy xaar moom bari na de parce que du yomb si moom moom franchement moom bu dee day yomb bu dee day yomb si moom moom day wax lu ko suuf sax population bi sax si boppam mën nañoo gouverner seen bopp bop que ay bopp lañ waaw comme yàlla dogal na daal moom am nañ moom soo am ci moom yaakaar mm. ginnaaw Sonko mm. ah li koy xaar daal moom koy xaar mais en tout cas daal moom li mu wax ak ñun na ko def rek loolu mooy l'essentiel bi yàkkamti wuñ nag mu wax ak ñun a may temps mu liggéey comme ni sénégalais di def fan la tey ne la tey la Sénégal di baax di ngeen ko may temps est-ce que mu liggéey dinañ ko may quatre ans man boog man dinaa ko may quatre ans mu xool mu choisir def ay affaire am parce que yombul parce que ñi fi nekk nii mooy loolu ñi dañoo yàq ba pare te kàmm gi ñu fi nekk dafa dafa xóot kenn mënu koo suule noonu mhm. na tey ci domaine bi nga xamante ni ci nga nekk ci wàllum njaay mi ak jënd bi buñ leen doon ciy yokkal ak lan lañ leen ciy jojjantil defaral leen ko lan lay doon. non njaay mi moom fi mu ne nii moom ba gars yi toogee ba léegi daa paan batterie kenn mënta jaay fi mu ne nii lépp a jaxasoo waaw mais alhamdulilah quoi yàlla baax na yàlla moom bëri na sutura waaw. lan ngay njëkk a xaar Bassirou Diomaye Faye ci côté mu wàññi dund bi wala location bi ci lan ngeen koy njëkk xaar. man damaa kontaan ba ma xëyee laa for 10 xanaa jommi nga. <laughs> damaa xëy rek foofu xanaa nag sant yàlla rek comme def nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim mu àgg ci alhamdulilahi rabil alamina loolu rek lañ doon ñaan ndax Sénégal moom ñun xamuñu nu xëy te du duñu doxi suñuy soxla jàmm rek moo ci xaj ndax te dëkku maam Serigne Touba dëkku El Hadj Malick dëkku Boukounta Ndiassane ak gaa yu baax yi jàmm rek moo fi mën a am mm. waaw. tey Amadou Ba mi nga xamante ne lajj na ci élection président yi. ñu daal di jàpp ni njàppandal njiitum réew mi président de la république Macky dafa des daf ko jiital ba pare fa xastal ko ban njàngat nga ci am. Ah, dogal bu am nag yàllaa ko dogal fekk na jiitu na moom bu booba waaw jomaay mi yàlla moom moo ko waroon na jox réew mi jox na ko ko ah, jox gi mu ko ko jox nag moom am na sasu rëy rëy rëy ndax li koy xaar bari na de. waaw li koy xaar bari na de futeeku liggéey rek te Sénégalais yi tamit nag bu ne bañ a yàkkamti muñal ko tuuti waaye liñ doon muñal Macky Sall ku si néew sax duñ ko ko muñal ndaxte réew mi ci boppam moom métti liggéey amul. commerce bi dafa paralysé secteur informel bi dara doxatul loolu moo tax gars yi bëgg changement kon nag maanaam joomaay euh, euh, daal ñu ngi koy ñaanal sans borom yàlla yàlla na ko yàlla kàttanal. yan bi yàlla na tiim boppam te bu mu ko laal ak mbooleem ku ma àndal ñu liggéey ko ci jàmm àndandoo liggéey rek àndandoo liggéey daal laa gis. waaw kon daal kontaan nañu ci yéen.